موجود ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم جيجين موجود قب زماني جيجين موجود سيد الحاج مالك سي جيجين موجود شيخ نمت تيجان شريف رضي الله تعالى عنه جيجين موجود شيخ أحمد بامبا موجود ما على عبد الله ينس موجود ممول مولانا الشيخ الإسلام موجود سيد بابا كرسي موجود خمام خليفة ينس جيجين موجود مام الإمام الله جيجين موجود كيف كوباخ jigéen moo la jur ñëpp ñu ñuy dawal tey di dangi dangi jigéen moo la jur et donc man Ousmane Noël Dieng maa toog nag di sargal jigéen ndax yàlla la njëkk sargal maa toog sama xel nekk ci yéen ma def vidéo bi déjee leen ko di leen wax ne maa ngi la ñuy sargal maa ngi la ñuy ñaanal yàlla képp koo xam ne jigéen la rek ak foo mën nekk ci àdduna yann yàlla sargal la yàlla yàlla dimbali la ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal yàlla jigéen ñi tëdd tawat yann yàlla saafara di ñaanal yàlla jigéen ñi nga xam ne franchement ñu ngi fi toog amaguñ jëkkër yàlla may leen jëkkër ñi nga xam ne ñu ngi sëy te amaguñ doom yàlla may leen doom ñi nga xam ne ñu ngi wut liggéey yàlla may leen liggéey saafara di ñaan yàlla jigéen ñi nga xam ne franchement ñu ngi fi toog amaguñ jëkkër yàlla may leen jëkkër ñi nga xam ne ñu ngi sëy te amaguñ doom yàlla may leen doom ñi nga xam ne ñu ngi wut liggéey yàlla may leen liggéey jigéen ñi génn àdduna yàlla moom leen ko ci mel ni sama yaay ak yaayu keneen ñu ñëpp yàlla yàlla yërëm leen ci daraja Seydina Muhammad jigéen ñi mouvement bi nga xam ne mooy sama mouvement MJKDFS koo xam ne soxna nga far yal na yàlla teral la ci barke Yonent bi sallallahu alayhi seen doom seen xarit nga xam ne man euh, lépp loo xam ne amul jigéen rek je pense que day doon day doon zéro parce que ah jigéen nag moom la yàlla teral sargal ko nag def ko nag